démocratie ndax tamit ni ñuy wax dafa am àpp wala dañ ko ñagg liberté d'expression boobu ñu am mbégte ànd ceek euh, maître Amadou Ali Kane ñëpp xam nañ ko ci wàllu yëngoom yi muy def ci taxaw ak ak yelleefu doomu aadama gannaaw layookat bi mu euh, doon te it euh, xam-xamam ñëpp ràññee ko ci amul naatable maître ñu ngi lay nuyu maa ngi leen bi fay di leen remercier ci invitation bi. Mhm. kon defe naa laaj bu njëkk bi samp na liberté d'expression. Mhm. ndax dafa am ñag ndax dafa am limite. waaw liberté d'impression d'expression effectivement am na limite am na ab liberté bu am solo la nag fu mu amul mën nañu jàpp ne démocratie amu fa. liberté d'expression lan la ëmb mu ngi ëpp ëmb liberté d'opinion maanaam. mën a wax sa xalaat mu ngi ëmb liberté d'information joxe xalaat joxe information xibaar jot ay xibaar alors liberté boobu nag su amul ci démocratie mën na jàpp ne démocratie mënta am parce que démocratie du mbiru mi muuma dafa laaj ñuy wax mhm. nga convaincre nit ñi mais liberté d'expression boobu nag malgré solo bi mu am nekk na liberté bu am app lan mooy app bi app bi moo di nekk que mënuloo sous prétexte liberté d'expression nga porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne maanaam yàq deru nit dégg nga ci loo xamante ne walla wala wala saaga ko yooyu yëpp c'est interdit mënuloo aussi euh, siiwal secret de la défense nationale mënuloo siiwal aussi secret médical normalement mënoo aussi feewale xeet yi diine yi tarixa yi yooyu yëpp liberté d'expression mayewu ko loolu boo ko defee def nga abus ci liberté d'expression maintenant ci wàllu droit de l'homme naka la ñuy sanctionner abus liberté d'expression waaw ah, defe naa lool mun nañ ko bàyyi pour deuxième partie émission bi am na solo ñu xool ndax effectivement tëj yóbbu kaso rek moo war a doon euh, solution bu ñu jàppee ni àq ak yelleefu doomu aadama boo xam ni la quand même c'est fondamental defe naa est-ce que du mooy bu njëkk bi sax Pape Djibril Fall ndax du mooy àq ak yelleefu nit bu njëkk mm. droit à l'expression mm. donte ni ko maître waxee ñàgg nañ ko droit à mm. moo njëkk waaw waxit la daal gannaaw nekk nga droit à la vie defe naa wax ak <laughs> euh, ak wax lu la euh, bon du ma ne wax lu la neex mais wax sa xalaat euh, moo war a nekk bi bi gën a fondamental Euh, effectivement lu am solo la mais man DER dans cette affaire là dama jàpp ne il s'agit pas de <coughs> d'une entrave à la liberté d'expression jàpp naa ne problème mu indépendance de la justice moom moo fi posé wu. parce que jamono Sénégal je pense que ne réew la yoo xamante ni nit ñi ci wax seen xalaat la ñu dëkk am na sa émission yi tudd wax sa xalaat suñu plateau bi ajuma bu jot suñu xalaat rek lañ fiy wax <laughs> <laughs> donc je... pense que c'est pas un problème de liberté d'expression. waaye problème mu indépendance de la justice la lan moo tax nit ñi gis euh, ci teg bi ñu teg loxo aussi bien Guy Guy Marius Sagna que Adama Gaye ñu gis ci une justice instrumentalisée ñu jàpp ne xëy na euh, procureur bu jógee rek euh, am laal nañu nguur gi loolu moom moo ko yëkkati d'accorduma ak ni ñu koy waxee waxin bi mën na change mën na mën na changer lépp ndax je pense que aussi yar ak teggin moom dafa am solo waaw waxin bi am na solo lool mm. ni nga koy waxee ak ni ngay def ba comme ni ko maître waxee doo attenter à l'honorabilité d'une personne wala à la considération d'une personne c'est un autre débat mais pour man débat bi fii c'est pas l'indép c'est pas c'est pas euh, la liberté d'expression mais c'est l'indépendance de la justice aujourd'hui on voit une volonté de mettre de de de, de limiter les faits et gestes d'une personne ndax jàpp nañ ne xëy na bu ñu ko bàyyee jàpp naa daal subversion la ñu bëgg a bëgg a subversif daal lañu ñu bañ. Mm. waaw Papis. waaw man li ma ci xalaat mooy de façon globale. Mm. Euh, en rapport avec euh, euh, ce ce sous-titre bi liberté d'expression. quelle limite way xam la vie elle est elle-même bi dafa am ay limites dafa am loo xamante ne xel la koy nangu xel lu ko nangu. Euh, importance su dama lay rejoindre ci importance su euh, liberté d'expression parce que xëy moom mooy seen premier amendement deuxième moom mooy le port des armes donc c'est essentiel te euh, États-Unis référence la il est également vrai que mën a wax sa xalaat taxul nga saaga nit quand comme ni ko met waxee Euh, wax teg si deram lu ñaaw di diffamation wala def loo xamante ne xëy na dana ko topp ay atte loo xamante ne dëppoowul ak euh, règle yi euh, leneen li mooy man jàpp naa ne journaliste am na leneen lu ñu ko war a xëy na mën a jàppee en général si yoo xamante ni xëy na du yi je peux comprendre par exemple ñu violer ay secret défense loo xam ne ça engage tout une nation la sécurité de tout un peuple mm. xëy na muy une bévue boo xam ne nañu ko sanctionner en rapport avec la gravité des, des, des faits peut-être. Mais sur des propos comme ça, je crois qu'il peut être possible aujourd'hui d'avoir un dépassement parce que plus moom moo tax papis ni ma doon wax maître il faut que ñu càmbar tamit euh, xeeti daan bi nga xam ni mm-hmm. euh, dinañ ko ci dinañ ko ci mën a indi ndax est-ce que tëj ràpp kaso kese mooy solution bi effectivement falaa bëggoon falaa bëggoon ñëw euh, encore que da ngay il faut être légaliste parce que quand la personne visée se sent mais atteinte am na aussi droit dem justice wala mm utiliser li nga xamante ne justice dëkk bi moo ko ko may ça on peut pas le lui refuser mm -hmm. mais damay wax de façon globale puisqu'il s'agit d'expression de journaliste qui a sorti des mots baax na baaxul war na am parallèlement peut-être un sursaut de dépassement boo xamante ni dina war a mun a euh, bañ a bañ a yegg foofu d'accord waaw tout en ne cautionnant pas que mu nekk journaliste que mu nekk quel qu'il soit nu mu mënti doon nit waroo yëkkati ay kàddu yu ñaaw wala yu amul di ko teg si kaw der mais démocratie bi ñu toll aujourd'hui et je donne l'exemple de de de Maître par exemple c'est vrai qu'il est arrivé ñuy am ay cas yu mel noonu mais souvent li nga daan dégg ci propos yi ci rajo yi li ngay dégg si euh, góor gi en général il laissait passer mm. parce que xëy na niveau euh, moo fa tolloon wala démocratie moo fa moo fa tolloon Et je ne sais pas si, est-ce que c'est le président qui veut qu'on fasse des sanctions Voilà, ce sont les techniciens, voilà, l'autorité judiciaire, Dans le cas d'espèce, on a, on a entendu ah. le ministre de la Justice dire qu'il prenait ses responsabilités. Bouba, liberté d'expression. Oui, mais, mais je, je, pense que déjà, il faut que nous nous d'accord sur que quand même, on est toujours en, en Afrique. Hein. parce que yenn prétention yi il faut gént rek moo la koy moo la koy may en tout cas loo am liberté liberté fii moom il faut que des fois nga fàttali ko ni tu es toujours en Afrique euh, pas c' pas la même chose que que nga nekk États-Unis wala def dara je pense que il faut quand même ñu convoquer ñaari cas yi nga xam ne moom moo moo convoqué débat bi mu nekk pour man ñaari cas yoo xam ne ute nañu. mooy ci ci démarche je que bu ñu bu ñu bu ñu tënkee au départ. Euh, vraiment quand même def dissocier ñaari kaay yi dañu peut-être mën a gën a aider nit yi seetaan ñu comprendre lan moo waral lii ak lii ak lële je pense que euh, wax nañ ko fi la dernière fois même bu dee woon si gis-gis su fekkee ni nit bi ñu njëkkatee muy gi gi waaw Guy Marius Sagna bi ñu ko jàppee liñ ci mën a wax ak li nga mën a wax ci maître euh, kii journaliste Mame Adama Guèye Guèye c'est complètement quand même pour man c'est mm-hmm. c'est c'est différent donc waaw bokkul parce que euh, suñu dëkk yi bu fekkee ni li ñu jàppee euh, Guy Marius Marius Sagna dañ ko ci jàpp suñu dëkk yi dañu soxla ay nit yu mel ni Guy Marius Sagna parce que tant que par exemple tubaab yi tant que ñu ngi France ñu ngi am mainmise ci suñu suñu réew yi nit yu mel noonu dañu baax ci réew mi parce que du tey rek la mës a wax yàgg naa artu yàgg naa jóg yàgg naa wax donc je pense que kenn koo xam ne euh, am nga bon sens mënuloo comprendre pourquoi Guy Marius Sagna nekk derrière le les les barreaux je pense que côté boobu il faut il faut ñu leeral ko en ce qui concerne euh, le journaliste pour man dama bëgg ñu jénne euh, mbirum journaliste ñu teg nee ñu ñu ñu seet aussi est-ce que am na loo xam ne nit war na ko mën a teg ci ci ci ci deru nit te mun ko prouver wala déedéet parce que quand boo ko tegee si assumac bi président de la république soo ko mënul prouver da am problème je pense que nit yu fi génnee même depuis temps wu euh, président Ablaye Wade nit yu fi gënoon virulent si kaw président Ablaye Wade boo jël boo jëloon par exemple ku mel ni euh, Abdoul Latif Coulibaly boo xam ne quand même à la limite meurtre sax defe naa jiiñ na ko fi Ablaye Wade lu ne dem na jusqu'au bout wax na fi lu nekk est-ce que c'était pas parce que il disposait peut-être de d'éléments yoo xam ne moom moom moo moo ko mayoon doole pour que muy mën a attaquer président de la république en tout temps sachant que am na fu coow yoo xam ne du fa loolu dafa am dafa am solo je pense que sooy attaqué boo même boo convoqué euh, liberté d'expression booy attaqué benn autorité quand tu pas boo amul assez d'éléments de preuve yoo xam ne mën nga ko teg ci kaw table bi fii ci Afrique fii gars yi rek ci nu mu kooku moom il faut il faut il faut être clair parce que gars yi bu ñu gisee que ni li ngay wax ni amuloo foo ko wekk du ñu convoqué ay liberté d'expression dañu naan kii peut-être que mënu ko prouver dama koy def ci kaso donc je pense que on est quand même ay sénégalais ñun ñëpp damay bëgg wax que ni tout le temps li ñuy dundee si suñu kër yi di ko dundee ak suñu papa yeeg suñu yaay yeeg suñu sëriñ yeeg suñu nit ñi il faut aussi muy refléter wul ci société bi am na am na fenn foo xam ne boo fa eggee dafay très difficile que nit ñi défendre la à 100 pour cent ñi nga dégg ñu ciy wax yëpp dañuy xaw a nuancé mm-hmm. mais kenn du catégorique par exemple maam euh, euh, monsieur Gaye journaliste bi mm-hmm. que li mu wax ànd nga ak moom à 100 pour cent on a un problème nag pour man Sénégal dañu am benn problème mooy euh, peut-être par rapport ak fi ngay far doo mën a ne nit ki d'accord ma ak yow mm-hmm. à 100 pour cent dangay trouver toujours façon boo ko ko waxee parce que pour man il faut mu weex wala mu ñuul d'accord naa ak li ngay wax wala d'accord wala d'accord su ma d'accordul ma ne ko même si su fekkee ni man opposition laa bokk li nga def nii du yoon je pense que aussi si dans tous les tous les domaines il faut que nit ñi honnête pour ñuy waxante quel que soit parti wala boor bi nga bokk ñuy waxante dëgg les yeux dans les yeux d'accord naa ak yow ak d'accord ma ak yow merci on a compris li nga li nga